Sénégal daanaka atum 2009 la fukki at ak ñeent a ngi nii boob ak léegi amul lenn lu mu xëccoo ci réew mi lu mooy sax loolu moom Karim Wade sori lool réew mi ndax Qatar la nekk ay at a ngi nii ndax am bu ñëwee dina attan mission bi nga xamante ne moo koy xaar moo tax ci tënk réew mi quotidien jàpp ni dëgg la naam Karim am na ay qualité waaye tamit li ko mën a gàllankoor ci élection présidentielle bi moom bari na lool Amadou Ba mi ñu jàpp ni amul lenn lu koy gàllankoor moom door na campagne tàmbale na samp ay cellule régional ci gox-goxaan yi moo tax yéenekaay bi jàpp ni ñaari mbir a am moo di ni doomu parcelle bi dafa xam ni njiitu réew mi Macky Sall moom lay tab wa illaa mu nekk rek di waajal boppam li amadu Ba di waajal moom la yeneen kilifa yu APR tamit di waajal muy fexe ba doon candidat bu Benno Bokk Yaakaar ci présidentielle bi ñu dëgmal xëccoo bi way di gën di takarnaase la tribune jàpp ni mujjantal gi daal jàppale ni Benno ci boppam ñetti candidat lay am ci présidentielle bi ndax ku ci mel ni Boun Abdallah Dionne Abdoulaye Daouda Diallo ak Amadou Ba ñoom ñëpp daanaka kenn nangul bàyyil sa morom te kenn ci ñoom yi tamit nangu tabootu ci ginnaaw sa morom moo tax yéen kaay groupe des médias bi jàpp ni Macky ci boppam daanaka problème bu gën a rëy ci biir këram moom lay jànkonteel jamono ji problème bi mën naa gën a yaatu foofe ndax biir parti socialiste tamit am nañu tàmbale yëglu enquête quotidien di fësal kàdduk Jean-Baptiste Diouf mi nga xamante ne dëggal na boppam ne dina doon candidat moo tax Benno boo moytul kon ci tasaaroo la jëm tasaaroo dëgg moo am diggante taxaw ak ko bis bi le jour ak enquête quotidien xamle li ko waral nag réew mi quotidien di ñu xamal ni bokk na ci Abass mi nga xamante ne ko jëlee ci poste premier adjoint au bu ville bu Ndakaaru bis bi gis ni kon Barthélémy Diaz ci boppam moo def lu nu mel mu jël poste bi jox ko Abass ak Ngone Mbeng bu taxaw Ndakaaru ba noppi meerum Ndakaaru Barthélémy Diaz ci boppam gis ni ñooñee di jege ñaale ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ñoo gedd poste yi nga xamante ne moom lañ leen jagleel tax na ba les échos jàpp ak Pastef léegi jàpp leen ni tas na sëy bii kay amatul benn jixi jaxa bu ñu sukkandikoo ci le manda mi jàpp ni léegi kon lépp leer na diggante Pastef ak taxawu ndax Barthélemy Diaz li mu def mooy fexe ba soriloo ñépp ñuy jege ñaale kii di Ousmane Sonko taxaw def na lu muy def ba noppi dëggal boppam ndax ci biir las ak source a kenn ci ñoom di Aba moom ma ngay mel ni kuy tontu waa Pastef ak seeni njiit donte moom député bi jàpp na ni ba tey kii di Ousmane Sonko Khalifa Sall mën nañoo joxante loxo waaye du lu ni mel la waa Yewwi Wi gis ndax dañoo jàppe waa taxaw ni ay workat moo tax les échos duñu xamal ni waa Yewwi jël nañu dogal daal di dàkk ñii di waa taxaw ndakaaru 24 heures di ko dëggal ndax xam le na ni conférence des leaders bu Yewwi Askan Wi dàkk na kii di Khalifa Sall ci seen biir xalifa Sall njiital taxaw ak waa Benno Bokk Yaakaar jàppale ni ab sëy la bi doog door te ñu ngi koy dund good fine noonee la ko wal Walf Quotidien xamle ndax ñi mu fësal seen nataal di xalifa Sall ak Macky Sall diggante bi ratax na lool léegi li waral nag diggante bi ratax xëy na mooy li ñu teg loxo ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko te mu am ba léegi ñi nga xamante ne ñoo koy ñawlu bokk na ci ki nga xamante ne mooy professeur Khadim Bamba Diagne e kàdduwam mu ngi ci biir yéenekaay bi di yor yor bi li muy xamle mooy li ñu teg loxo Ousmane Sonko bokk na ci li gën a nasaxal dëgg démocratie ci Sénégal Ousmane Sonko mi ñu teg loxo am na ab daan bi ñu ngàll ci ndoddam moo tax yéenekaay bi di l'Observateur jàpp ni Sonko ci boppam génnee nañ ko ci géew gi te li ko waral bokk na ci njiital Pastef mi nga xamante ne dañu koo tas nekkatul électeur waaye tamit mënuta sàkku baatu askan wi waaye yëfi jeexagul ndax L'Obs mu ngi xamal ni xeex bi moom ci wàllub yoon war naa métti présidentielle 2024 moo war a métti Sud Quotidien jàpp ni lu ko waral mooy kart gi ci boppam dañu ko daal di jaxase jaxasoo bi nag bokk na ci li ko waral Macky Sall mi ne du nekk candidat Ousmane Sonko mi ñu teg loxo waaye Karim Wade ak xalifa Sall nga xamante ne booleyaat nañ leen ci yëf yi moo tax daf fi gisaane lu war a jafe lay doon jafe bi maître Babacar Ndiaye nekkee neexul benn yoon ay naataangoom avocat ndax bâtonnier bi ci boppam ci biir le quotidien ma ngay mel ni kuy weddi ak jubbanti kàddu yi nga xamante ne jëwriñ ji ñu dénk wàllub yoon yëkkati na ko le quotidien yéen kay wax ci li xewoon ca Canada ak ambassade bu Sénégal bi fa nekk mi nga xamante ne dañu ko daal di caxat caxate yëf yi nag am na li ciy bees ndax yéen bi dafa jàpp ni ñi ñu njott ni kon ñoo def lu ñu mel mujj nañ leen identifier moo tax jamono ji police bu Canada moo ngi leen di yoot ngir teg leen loxo ki ñu teg loxo boob xamante ne fukki fan ak benn ngi ni mu nekk ci gréwu xiifal jamono ji situation am nekk bu doy waar noo ne la ko libération daal di xamle moo tax ay jegeñaaleem naka noone waa FRAPP lépp lu ko fekk ci biir kaso bi rek gouvernement bi moo ko waral libération yóbbu ñu ba ci dax la nga xamante ne dafa jàpp ni ab diwaan la bi nga xamante ne fa la bakkan yi di rotee jamono ji lu toll ci juróomi sénégalais ñoo fa daal di ñàkk seen bakkan gannaaw seen suuxub gaal am ñi ci jëlee ay gaañu gaañu lu toll ci ñaar fukk ak ñett ni ay aji ñoom la yóbbu urgence am na ci sax ñu bëri jege nañu sax ñaar téeméer ni ay sénégalais nga xamante ne ñu ngi fexe ba delloosiwaat leen fii ci Sénégal sénégalais yi nekk ci Arabie Saoudite muy Kalidou Koulibaly ak Sadio Mané yegg nañu final coupe arabe des clubs Rewmi Sport di ñu xamal ni démb la Al Nasr ak Al Hilal daa di am seen qualification ngir jëm ci final bi Stade Quotidien di xam ne ni kon jàkkaarloo dina am diggante Sadio Mané ak Kalidou Koulibaly waaye yéenekaay bi di xam ne ni kon démb nag lu ñu gis mooy diggante Sadio Mané ak Cristiano Al